administration là problème à justice direction générale des élections ministère de l'intérieur ak conseil constitutionnel nous problème amal problème ñan tontul Benno Bokk 22h ñu dañ tontu parce que ñun ñi jël ay décision ci ndigalu Macky pour éliminer suñu liste de manière injuste et illégale de manière anticonstitutionnelle nous ñooñu la waxal ça, ça soo leen tuddee kan mooy tontu Benno Bokk Yaakaar mooy tontu loolu moo amul sénégalais bu administration Sénégal ak justice Sénégal dañoo los Gombano. dañoo nërmeelu waaye dañoo dem jébbalu ci Macky Sall leen wax suba fait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 kon institution Macky Sall des institutions institution la nit la di père de famille di jëkkër di dom. ni mu ne fay ay nit ne dem len sagal ma Ousmane Sonko dem len sagal ma Macky Sall demal dem len sagal ma Khalifa Sall ak keneen ak keneen te boobu ba léegi déggu ñu wax ndax yàlla may nañu xol yu yaatu ba ñu a dëkku waaye ni sa xol moom ak benn grain d'atome ñoo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 kon fi mu wàcce institution yi fii institution présidentielle au Sénégal kenn musul egg foofu léegi nag li may wax sénégalais yi mooy Macky Sall institution la ab nit la yor njabot, yor soxna yor ay doom buñ ko tuddee ci an am bu mu jàpp ni du anam bu bu bu jaadu Nim koy méttee na xam ne ñi fay pour ñu dem saga nit ñi ñooñu muy saga, dañoo yor njabot, yor ay soxna yor ay kër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 ñom ñu né dañ ko japp ci flagrant délit te gannaaw def na ëlëk sa wala gannaaw ëlëk sa lañ ko dem japp donc lool dootul lu toy nga né japp nga ko flagrant délit mais flagrant délit da ko wara juger ci nu mu gëna gaawé moy flagrant da ko représenter devant le juge ñu juger ko té li ci ëpp sursis lañ lay def nga nga bàyyi mais japp nañ ko ci flagrant délit dem ba ci biir procureur bi doon wax sax nga xamné ne moo yées Serigne Bassirou Gueye c'est procureur bi mom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 ma delloo si xel ci lenn conseil constitutionnel forfaiture bi ñu def li ci gëna graw du sax ñu né liste titulaire u askan wi warul dem waye le fait que ñu fexé ba dugulat Benno Bokk yaakar te bobu jamono Benno Bokk yaakar ay parrainage am ëpp na muy benn parité respecté wu ko looloo gën ci le conseil constitutionnel def ces sept charges là c'est des criminels li def c'est un crime loolu moo gën a garaaw que sax le fait que ñu ne ñun suñu liste titulaire nationale du dem kon dama bëgg ñu delloo ci xel yi ci loolu balaa ñu naan suñu liste nationale dafa war a bokk coow li yëpp mooy Benno Bokk car waruloon bokk ci élection bi parce que Kenen ku mu doon listam doo bokk ci élection bi ñaata nit la ñu parce que nee nañu seen parrainage matul yoon dafa ne parrainage bi bu manqué ben vous dem bu Ben Ben munoo dem benn bokk yaakaar ben. depuis quand conseil constitutionnel nga c'est le juge de la conformité à la constitution non l'arrêté de ministre depuis quand le conseil constitutionnel est le juge de la conformité à un arrêté ministériel c'est une honte c'est une honte ce que la magistrature est en train de faire dans ce pays et j'interpelle l'union des magistrats Boudé dee l'en na leen lenn l'en dee qui ci dignité ak ci probité nañu jóg wax ci ñoom li def ñoom magistrat yi ci réew mi bu dee nag dañ ñoo bëgg a ni justice amatul desetul dara lépp a ngi ci loxo Macky Sall ñu xam ni on a un pouvoir exécutif amuñu judiciaire amuñu législatif pouvoir exécutif la am boo xam ne ay juges yu koy jaamu la ay fonctionnaires yu koy jaamu la fi des ci réew et donc ñetteel bi ma bëgg a wax mooy arrêté préfet bi li préfet def dafa symboliser ce que nous faisons def suñu administration léegi li ci administration le gouverneur là, bëgg a wax gouverneur d'abord parce que le gouverneur de Dakar comme je xam bu baax la maag beaucoup ñoo bokk promotion ENAM chaque 5 heures ñoo doon footballeur au terrain ENAM xam naa ni ku baax waaye alxasan gis nga aduna yenn say nga jël sa responsabilité ñu affecté la feneen sax mo gën nga nangu ñu associer ce tour. ci njombe yu melni mom gouverneur Alassane Sall sama frère la je le connais xamna nit ku bax la l'esprit non lañ ko doon woyé football l'esprit l'esprit ñu la waccé ba ci lii rafetul carrière jarul yenn nit cette dignité ak sa diggante ak sa borom amul luko wara war a jar ay carrière Macky Sall Antoine Diom, waxna na et parce que mom ci bopom ñu signé la lol xamna ni euh, article biñu wax yéen journaliste yi la djublu te pourtant un journaliste yéen a ngi ni découvrir suñu conférence de presse bu meeting amé di ngeen ñew article bi amul ben rapport avec la liberté de manifester ou de se regrouper amul dafa ne période électorale bi yéen waru leen couvrir propagande électorale ñoom suñu cohérent cohérent ak ñoom te yéen ñëpp dañ leen war a ñëw roñ kon moom Alxasan xam na ni liñ ko signaloo te wóor na ma sax dañoo bind rek ne ko signal mu signé xam na ni lii dëppoowul ak yoon waaye c'est à ça que notre administration est réduite et c'est triste réew mi bu ñu koy defaraat justice ak administration la ñuy njëkk jublu ay réformes parce que justice bu nërmaloo ci pas, rek dara desu fa na des justice les soo waxee ñu làqat waaye judiciaire nangam les les plus grands ennemis de l'institution judiciaire sont dans la magistrature C'est ce que kon arrêté gouverneur bi c'est un arrêté illégal Il mënul servir de base à une interdiction préfet bi li def tay mënul légal parce que préfet bi ñaar la wax bu njëkk moy menace de trouble à l'ordre public Ça, wax ñu nak menace de trouble à l'ordre public bi lan la dé xamna MFDC moy ñëw ak toutes ses bases à la place de l'obélisque peut-être que sax Macky mo leen di jox carte ñëw lan moy menace à l'ordre public ñun di semaine ba la def nañ fi manifestation dara yëngul manifestation bu mucc ayb ñu paré ramasse euh, mbuus yeeg yëpp defaraat place ba mu rafet nit ñi ñibbi moo Moi, d'ailleurs lima ma wax léegi gis le procureur il faut euh, il faut ce askan wi déposer une plainte contre le procureur parce que ñu def manifestation ay une semaine rien. amul dara amul nga toog ba Nous nañu suñu manifestation boobu insurrection la woon est-ce que procureur Bob, bi yuur normal na avons fait une manifestation une semaine plus tard dara avons pétard sax dégguñu ko nga inventé histoire ne manifestation fait insurrection la ana les les les les signes de l'insurrection kan la ñu nous fan est-ce que déloger palais est-ce que est-ce que ana ana signe insurrection le nous on va déposer on va demander à nos avocats de préparer on va déposer une plainte contre vous parce que toi, yor fonction rek foog ni lu nous mën nga ko teg ci ci deru nit ñi dafa yomb procureur waxul dëgg waxul dëgg xam na ni insurrection amul te nous l'interpellons personnellement parce que dafa am loo xam ne nit su koy def mun nañ des actes et des propos détachables de sa fonction fonction procureur douli, Ce que je wax politique bu ñu waxee loolu ba pare nag dañuy wax sénégalais yépp que suñu manifestation gannaaw ëllëg maintenir nañ ko duñ ci changer lu tool ni tarfata ay manifestation bi maintenir nañ ko duñ ci changer tarfata ay man dama ne sax est-ce que waruñu koo dem defi place de l'indépendance waaw est-ce que waruñu koo defi place de l'indépendance duñ ci changer dara dinañ def suñu manifestation parce que nag li ma bëgg incha allah bokk li ma bëgg sénégalais yi xam gis nga li ñuy xeex nii du ay poste yu ñu bëgg fii amul kenn ku fi ku fi poste député ñi fi musa ñi fi toog ñëpp daanaka presque mus nañ nekk député ministre ak yeneen ak yeneen man mii di wax ak yéen bëgguma nekk député bi ñu waxee dama leen ne woon am naa mandat bu may gérer à Ziguinchor dama bëgg a concentré wu ci loolu Nous avons nak ñuy préparer élection présidentielle Wachtan, mon andi convaincre nous Nadu. suma suma député damay choisir la député parce que man de fonction kon ñun député suñu nañu député ans députés. Nous député ñeneen fi Nous euh, Khalifa Sall etc. nous avons. Nous député pour poste mais principe la xéxal moy li suñ ko nangulé Macky nañu xamni c'est fini ci Sénégal nit ñu bari dañuy woo naan ñu euh mom bu len ko top ci lolu xam ngeen décaler len mbir mi et tax 10 ans yi passé Macky Sall di def lu ko neex est-ce que mën nañu continuer accepter que Macky moy tànn kan moy dem élection élection législative bi ñuy dem. Ben ténor opposition du Tibok. est-ce que xel France élection législative Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen ma élection législative France nous avons éliminé les deux parce que nous nañu listam mu élection législative Sonko du Khalifa Sal du Karim du Fall du Bok, Aïda du Bok, la bonne façon élection législative est-ce que les sénégalais war nañ ko nangu kenn ku fi nga salon nañu poser aux questions yoy, principe yoy muy ñaar def pour annuler suñu candidature té ko ci yoon bi mu les libertés confisquer ma ni 2011 l'affrontement inévitable ça va se jouer dans la rue j'invite le peuple sénégalais à sortir il n'y avait pas d'autorisation chaque jour nous avons une place Obélisque il n'y a pas d'autorisation Le may wax Macky Sall ça se jouera dans la rue et moi j'appelle tous les Sénégalais à sortir dans la rue c'est tout kon nag buñ manifester

commande politique ça n'a rien à voir avec la justice procureur ci ne li wax du dëgg xam na kon def politique la du justice Taït, leader yi fi que yépp ay cible Macky Sall lañu waaye xam nañ ni tey leen tax a Ousmane Sonko moo dem nañu fabriquer un rebelle fexe nañ ba mu tudd Ousmane su tudd woon Ousmane it Sonko lay sant waaw su tudd doon Ousmane su tudd doon Bakary Sonko lay sant dem nañu fabriquer seeni rebelle nee nañu waa ji moom xamu fu mu jógee moom dong nag mu waroon ñëw taal Sénégal moom dong xamu fu ñu ko jëlee ak ay xam naa ni war naa yàlla war na koo may ay don yu extraordinaire moom dong mu waroon ñëw taal ci Sénégal ma wax leen ni procureur waxul dëgg day politique ci politique la nek. waaye procureur dafa waroon am fitu ne Macky Sall daf maa yebal pour ma djign Ousmane Sonko rebelle dem jàppi ko wax djeb lool la ay personne n'est intraçable dans ce pays li ci djublu xam nañ ko waaye ñoo ngi leen di xaar jogé nañ ci complotif jogé nañ ci complot salafiste jogé nañ ci complot Tullow oil légui bi mo leen déssé waaye fi lañ leen di xaar fi lañ ñuy fekk un complot bi mu la loi duma ko duma mars daw la voté loi ci terrorisme yéen a fateliko rebellion rébellion la bëgg appel à insurrection ñaar appelé à manifester qui est un droit constitutionnel et désormais un appel à insurrection dans le jargon de lexique juridique de Macky Sall de son procureur et de ses juges foofu lañ tollu ci Sénégal sen mbébét yëpp nak moy nu ñu def ba teg loxo ci leader yi seni complot dem na ba ne soyez pas étonnés ñu fomenter fi ay attentat Macky Sall sañ nako di ngeen jékki-jékki ñu dégg attentat parce que so wax ñu né contexte sécuritaire le Sénégal n'est pas en danger sécuritaire daw biñ ko waxé 4 avril police ak gendarmerie militaires ak gendarmes, 4 avril ñoo def seen émission ne li ñuy wax amul a pas de djihadisme ni de terrorisme au Sénégal démenti mi ngi fi dugg ci internet parce que nous avons une armée très républicaine Vous kenn mënu ci yi muy def ni police la ak ñi ñi gendarmerie wayé police bi du len top de la ci agent yi chaque fois Macky Sall bu mu ça a eu yu défé limités pour paré ba pare day jël avion dem bu mu mais complot yo yépp daw biñ ko waxé dajalé dajalé euh, force occulte qu'on a vu jusqu'à présent euh xawma lan ak lan terrorisme gendarmerie ak police ñoo ñew plateau 4 avril né lolu amul kan mo information gendarmerie ak armée ci lu jëm ci sécurité amul ci Sénégal Macky Sall ci boppam ñoo koy informer Sénégal nak ñoo wara bañ Macky Sall sa stratégie waxon naa ko fi c'est la stratégie du chaos xam ni mënul am troisième mandat nu muy def ba créer un chaos fexé ba jàppale leader daa di décréter l'état d'urgence et, et, et, et le comment on appelle ça le couvre-feu général pour mun justifier nak limi def régime militaire la fi bëgg andi bu dé nak dañ ko top ci lolu nous avons fait des complicités étrangères et à l'interne. Les milices qui sont montées, c'est Macky Sall. Les milices qui sont montées, pour nous faire des choses qui sont nous avons fait l'opposition qui nous a voté. C'est ce que nous avons dire. Nous avons parce qu'il y a des informations. Je veux dire nous avons beaucoup de nous ont dit bu leen dem ci affrontement ñun une option première du affrontement un droit constitutionnel que nous bëgg exercer un point un trait Et refuser une mascarade par rapport à nos listes amul n'y ñu bëri dañ lay wax ni Macky Sall sait que l'affrontement est inéluctable mais repousser leen ko ba le troisième mandat commencé mais li ma bëgg dire wax sénégalais que li mu bëgg def ni suñ ko ko dara dootu ko jom ci li ci parce que du ko ne wala mun na raisonner. xamul su mu noy rek day dem combat de principe nous ñuy xex manifestation ëllëg bi gannaaw bi de yi ñoy xol ndax suba dañuy introduire référé directement euh, au niveau de la Cour suprême man dama koy wax cour suprême gëw ma conseil constitutionnel jusqu'à ce que ñu réformer justice bi dama geumul justice au Sénégal ci dossier bo xamné amna connotation politique geumumako mais la loi d'abord l'article de la constitution dafa la liberté de manifester sénégalais dama bëgg mu leer moy sénégalais bu nek am nga sañ-sañu ñaxtu te waxul ni nga waram autorisation de dafa ko wara yéggal rek autorité bi la loi de 1978 sur les manifestations la loi dafa les autorité administrative ne interdire un regroupement ou une marche mais il ñaari conditions pas conditions Et dañu a a daje dama bëgg ñu déglu ñu bu baax donc l'interdiction, c'est l'exception Ce n'est pas le principe mais pour moi, il faut que ñaari conditions yi daje bi ci il faut prouver ni am menace à l'ordre public prouvé vous quoi de wax ñu lan menace loolu moo ñu procureur génnal ne gis nañ fi ay rebelle yu bëri Salif Sadio sax mi ngi Dakar ay waxu daanu saret yoo xam ne kenn xamul lu mu doon ñaareel bi mooy ñu prouver que ñoom amuñu suffisamment de force de l'ordre pour pour encadrer la manifestation ba troupes ba menace de trouble à l'ordre public boobu du am a rien il faut mu or si vous seetee arrêté préfet bi benn la ci wax kon arrêté c'est illégal dafa une menace à l'ordre public mais waxul ni man préfet a suffisamment de policiers de gendarmes pour encadrer la manifestation Et gis nga la cour suprême ci boppam génne na ci arrêt yu bëree bëri bëri bëri ma jox leen ci en 2011 Aluntine, Tine Rado contre État du Sénégal en 2016 Amnesty internationale contre l'État du Sénégal. En 2018, Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, Assanba, Biran Bari et compagnie contre l'État du Sénégal. Yep, même chose. l'État du Sénégal doit interdire une manifestation. Cour suprême n'est pas. simplement que menace à l'ordre public, mais prouver au niveau amo suffisamment d'effectifs, de policiers et de gendarmes pour encadrer les menaces. Donc tu n'as pas le droit d'interdire la manifestation. Donc l'arrêté du préfet lui-même est illégal Maintenant, nag leader yi mun nañu parce que man suis ay justice woon ci jamono ji man justice mais ce que nous avons état suñ la cour suprême a 48 heures pour délibérer mais vu que nous avons notifié l'affaire, si nous notifier affaire bi la cour suprême doit se donner les moyens de de régler cette affaire avant vendredi matin c'est ça qui est la norme mais duñ ko def parce que waajee toll fi toll Sénégal je vais lancer un appel aux Sénégalais aux militants et militantes aux sympathisants et aux sympathisantes à tous les Sénégalais et Sénégalaises épris de justice appel c'est un appel à la résistance constitution moo pour nous dénouer, di utiliser les moyens d'état pour dal ci kaw sénégalais pour dal opposition bi constitution may le la droit de résister Nous valable won mois de mars le valable tay lu de ci sénégalais dañu ni mobilisation bi sénégalais yi affaireu liste jaralagu mobiliser donc nañu xaar mbir mi ba bu mu tuddee troisième mandat may wax sénégalais ni du affaire liste moo tax ñuy mobiliser wu. liy xew tey mooy déterminer troisième mandat bi bu ku jàpp ni affaire bi suñ ko bàyyee mu yomb nii du continuer ci troisième mandat bi forcé def forcing da ngay nax sa bopp. moo tax j'appelle tous les sénégalais à la résistance dafa am jamono yoo xam ne buñ ci tollee cim réew li nga xam ne mooy xeeñ ci sénégalais yi ñëpp xam ni changement bi ñuy xaar depuis longtemps xeeñ na. Maintenant, na surtout jeunesse bi surtout étudiants, jeunesse bi muy étudiant bi muy ambulant bi muy euh, euh, élève bi muy ak nga xamné ne lañu bëgg xagn lolu Macky fi ans parce que rek suñu gaz bi mu bëgg jaay mu jaay ba paré bëgg ko continuer ak suñu réew mi ak ak su ngeen ba facilement suñ ko ba mu romb facilement dinañu màtt suñu baaraam te duñu am fuñ ko jooyee moo tax fu ñuy daanelee mooy appelé publiquement massivement à la résistance face à la dictature rampante de Macky Sall. Je vais résumer tout ce que j'ai dit en quelques mots en français. J'ai commencé tout à, tout à l'heure mon allocution par exiger la libération de Cheikh Abdou Barak Dolim à tous ceux à qui on veut faire croire que Cheikh Abdou est retenu parce qu'il aurait, offensé le chef de l'État, je dis que ça n'a rien à voir. Il est retenu pour des considérations strictement politiciennes. C'est la tête de liste de l'alliance Wallou Yewi Ambaké. On est à quelques encablures des élections. Macky Sall sait très bien qu'il va perdre encore une fois Mbaké. Et il pense qu'en prenant Cheikh euh, Abdou en otage, il parviendra à amoindrir nos forces, à réduire nos forces et à se donner une chance de remporter les cinq députés du département de Mbaké. C'est la seule motivation. Il n'y a rien d'extraordinaire que Cheikh Abdou ait euh, dit ce jour-là. Il y a des gens qui disent pire, des gens qui appellent au meurtre. Et vous n'avez pas vu le procureur qui vient de faire son cinéma, son cirque. Vous ne l'avez pas vu bouger le petit doigt. Et c'est dans ce Sénégal que nous vivons un Sénégal d'injustice, un Sénégal de forfaiture quasi quotidienne. Tous ceux qui sont avec Maki, que vous ayez détourné de l'argent pour remplir des chambres euh, de vos appartements, que vous ayez blanchi de l'argent, qu'on vous ait pris la main dans, le, sac en train euh, de fabriquer des faux billets, que vous ayez appelé publiquement au meurtre, que vous ayez insulté du matin au soir les opposants, vous pouvez aller dormir tranquille, il ne vous arrivera absolument rien. Et pour des bourgis, on prend une autorité politique et religieuse pour le mettre en prison et pour l'humilier. C'est le cas de Cheikh Omar Diagne, c'est le cas de, ce sera peut-être le cas de tout le monde si on continue à laisser faire Macky Sall. Parce qu'il ne s'arrêtera pas. Il est obnubilé par son troisième mandat. Il est prêt à marcher sur des cadavres pour avoir ce troisième mandat. Si les Sénégalais le faire, il ira jusqu'au bout. Et c'est ça, le troisième mandat, évidemment, ouvrant sur le mandat à vie. Parce qu'après, il va nous dire que c'est un nouveau mandat qui n'a rien à voir avec les autres. C'est ça qui est en train de se jouer. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il y a des moments où c'est le peuple, tout un peuple doit se dresser. Parce que c'est des moments extrêmement graves qu'il ne faut pas laisser passer. La deuxième chose que je voulais évoquer, euh, c'était euh, la deuxième chose que je voulais évoquer. Euh, c'était que dans la communication, je veux ramener les Sénégalais à l'essentiel. Parce que depuis une semaine ou une dizaine de jours, ce qu'ils ont réussi, c'est de déplacer le débat et ce qu'ils essaient de faire encore avec de fausses histoires, de fausses histoires de rebelles ou je ne sais quoi. Comme dit Guy Marissania, le seul rebelle dans ce pays, c'est Macky Sall. Et donc, ils ont réussi à déplacer le débat politique pour que nous oublions que le vrai, véritable débat, c'était que Benno Bokoyakar ne devait pas participer aux élections et ne doit pas participer à ces élections. Parce que Benno Bokoyakar a produit un nombre de parrains supérieur à ce qui est autorisé. Et le ridicule ne, ne tuant pas dans ce pays, vous avez un conseil constitutionnel qui est le juge de la conformité à la constitution qui vous invoque un arrêté d'un ministre pour valider une liste. C'est une honte. Et donc, il faut qu'on ramène ce débat. Benno Bokoyaka ne doit pas participer à ces élections. C'est ça le vrai débat. Et je veux que ça soit réactualisé et ramené au cœur du débat. La décision du Conseil constitutionnel est anticonstitutionnelle. Le Conseil constitutionnel est aujourd'hui une juridiction qui viole la Constitution. Et de manière générale, ce qui montre le lien qu'il y a entre la, justice politique de ce pays, l'administration et Macky et Benno c'est qu'à chaque fois que nous, nous faisons une sortie contre les décisions de l'administration ou de la justice, c'est Benno Bokyakar qui répond. C'est Benno Bokyakar qui répond. Et ils disent que maintenant, ils ont la police pour eux, ils ont la gendarmerie, ils ont la justice, donc ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est ça le discours de Bernard Bokoyakar. Quelle arrogance et quelle inculture, si le, mot existe, quelle inculture d'État. J'ai la police, j'ai la gendarmerie, j'ai la justice, je fais ce que je veux. C'est à ça que Macky Sall a réduit la République du Sénégal. Le parti État, la coalition État, qui fait ce qu'elle veut, qui emprisonne qui elle veut, qui fabrique tous les dossiers qu'il veut, et on nous dit, nous maintenant, comme disent les jeunes, les les neutres de ce pays nous disent non, c'est pas grave. Laissez-le vous emprisonner, ça vaut mieux que de soulever les gens. Laissez-le écarter votre liste, ça vaut mieux. C'est de la fumisterie, il faut que les gens arrêtent. Si les gens n'osent pas dire à Macky Sall, arrête ce que tu es en train de faire, tu as tort et tu es en train de mettre la sécurité de ce pays en péril, mais qu'ils aient un peu de scrupule à nous interpeller. Tout le monde sait que nous sommes les victimes de Macky Sall. C'est ça la réalité. Ensuite, parler de, du gouverneur de Dakar. J'ai dit tantôt à Wolof que c'est un monsieur que je connais bien, avec qui j'ai passé deux années à l'ENA. Tous les après-midi, après les cours, nous jouions au football au terrain de l'ENA. Un monsieur que j'aime bien, affable, courtois. Mais je suis obligé de lui lancer ce message. C'est pas ça qu'on t'a appris à l'ENAM, à la Sansal. C'est pas ça, servir la République. Et quelquefois, mieux vaut prendre ses responsabilités et refuser d'appliquer un ordre manifestement illégal. Parce que qu'est-ce que vous, vous, vous, vous encourez comme sanction Une affectation simplement. Mais vous gardez votre dignité et vous êtes resté avec, quitte avec votre conscience. Et c'est ça le fonctionnaire que nous voulons dans ce pays. Mais pas des gens qui appliquent. Moi, je suis sûr qu'on lui a écrit un document et on l'a dit signe ici, il a signé. Simplement. Et ce qu'il a dit, il sait pertinemment que c'est faux les dispositions qu'il invoque, l'article qu'il invoque, vous concerne, vous, la presse. On dit, on est entré à la période préélectorale, vous ne devez pas couvrir les propagandes politiques. On considérerait que ce, ce point de presse est une propagande politique, et vous êtes là à couvrir. Et vous allez couvrir toutes les activités politiques. C'est ça la vérité. Si jeudi, vendredi, on fait un meeting, autorisé ou pas, vous allez couvrir. Donc ça, c'est des histoires ça n'a rien à voir avec la liberté pour les citoyens de se regrouper et de manifester. Ça, c'est un droit constitutionnel. On ne peut pas viser de faux articles pour, pour nous l'enlever. Et c'est pourquoi l'arrêté du préfet est doublement illégal. L'arrêté qui nous interdit de manifester le vendredi. D'abord parce que je l'ai dit et redit, le droit de manifester est un droit constitutionnel, article 8 de la Constitution. Si c'était Macky le président à l'époque, il n'y aurait jamais eu cet article dans la Constitution. Et s'il pouvait l'enlever tout de suite, il l'enleverait. C'est un droit constitutionnel, primo. Et exceptionnellement, la loi de 1978 qui organise les manifestations a posé l'interdiction comme une exception. c'est pas le principe. Mais là, encadré. La loi dit, pour que l'administration interdise une manifestation, il faut qu'il y ait deux conditions cumulatives. Ça veut dire que ces deux conditions doivent se retrouver. Vous ne pouvez pas en une et laisser l'autre. Et c'est lesquelles conditions C'est de dire, un, il faut que le préfet prouve qu'il y a menace à l'ordre public, de troubles à l'ordre public. Et deuxièmement, qu'il prouve qu'il n'a pas suffisamment d'effectifs en termes d'agents de sécurité pour encadrer et éviter cette menace. Or, dans l'arrêté du préfet, il s'est limité à dire menace à, l'ordre public sans dire quelle est la menace à l'ordre public. Et il n'a pas dit qu'il n'a pas suffisamment de policiers et de gendarmes pour encadrer la manifestation. Et à chaque fois que l'administration a pris des décisions de ce genre et que les manifestants ont saisi par la suite la, la Cour suprême, les décisions que j'ai citées tout à l'heure en 2011, il y a Aluntine et la contre l'État du Sénégal. On n'invente rien. En 2016, il y a Amnesty International contre l'État du Sénégal. En 2018, il y a Église du christianisme céleste contre l'État du Sénégal. Et en 2019, il y a Hassanba, Biram, Biram Bari et, d'autres contre l'État du Sénégal. À chaque fois, la Cour suprême a débouté ou a cassé l'arrêté du préfet en lui disant que tu n'as fait qu'invoquer une menace à l'ordre public mais tu n'as pas prouvé que tu n'as pas suffisamment d'éléments pour pouvoir encadrer cette manifestation. Ça veut dire que le préfet, ce qu'il fait, c'est illégal. Maintenant, les leaders ici présents, avec les avocats, vont voir la pertinence de déposer dès demain matin au niveau de la Cour suprême, qui, j'en suis sûr, ne s'empressera pas à, se prononcer, puisqu'il a 48 heures. Elle a 48 heures, elle attendra vendredi à 19h pour sortir de l'affaire probablement. Ensuite, dire aux Sénégalais que, fort de tout ça, nous maintenons notre manifestation du vendredi 17. Nous la maintenons. Parce que Maki ne peut pas piétiner toutes les lois de ce pays, piétiner la Constitution et on continue à dire non, laissons-le faire, laissons-le faire. Jusqu'à quand Jusqu'à quand Parce qu'aujourd'hui, c'est deux choses. L'injustice contre nos listes, mais le minimum qu'il nous restait, le droit de manifester, Macky Sall dit qu'il va nous priver de ce droit. Et c'est pourquoi nous maintenons cette manifestation. Et je veux dire aux Sénégalais que ce n'est pas parce que nous sommes obnubilés euh, euh, euh, et d'ailleurs, je viens d'avoir l'information pour vous dire combien cet homme est intolérant. Il a donné l'instruction au directeur de Dakar Arena pour qu'il annule la cérémonie qui, était qui devait être organisée le 18 euh, à l'honneur du président du PUR, Serigne Moustapha alors que l'autorisation était déjà obtenue. Que, les gens ont versé, les cochons ont fait tout ce qu'il fallait. Qu'un parti ait Saddaïra euh, sa décide d'organiser une cérémonie d'hommage à leur leader, même ça, Macky Sall n'en veut plus dans ce pays. C'est extraordinaire ce qui se passe. Si on, ne, si on ne freine pas Macky Sall tout de suite, les Sénégalais qui sont là à donner, certains qui sont là à donner des leçons de morale, si on ne fait pas face à Macky Sall tout de suite, comprenons que ce combat est perdu définitivement. Je voudrais dire également et nous apportons tout notre soutien au PUR, qui est un parti allié. Et nous disons à Macky Sall qu'on fera face, parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Toute cette mascarade-là, j'annule ma tournée. Depuis quand il a annulé ses tournées Il a fait des tournées ici en pleine période de, pré-campagne. Depuis quand il annule Ces cafards-là qui disent qu'ils euh, annulent également leurs manifestations. quelle quelles manifestations ils vont faire Tout ça pour, montrer euh, monter un puzzle et puis c'est le procureur après qui monte au créneau pour nous raconter des histoires. C'est ça qui est en train de se jouer. Et il pense que les gens n'ont rien compris, qu'on peut les manipuler comme ça. Alors, je voudrais dire aux Sénégalais que nous qui sommes là, ce n'est pas un poste de député qui nous fait courir. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas une histoire de il faut impérativement que Sonko soit une histoire soit sur la liste, que Détier, que Aidemboy, que Habib, etc. Certains d'entre nous, dont moi-même, ne voulaient pas être sur les listes. Je veux le dire aux Sénégalais. On n'est pas obnubilé par ces questions. Mais c'est une, une bataille de principe qu'on est en train de mener. Pour la démocratie qui est, qui est, le produit de luttes très acharnées des décennies durant. Et c'est tout ce qu'on avait comme acquis. Macky Sall est prêt à piétiner, à marcher sur des cadavres pour avoir un troisième mandat. C'est ça qui est en jeu. Hein. Ce n'est pas des histoires de poste. Et pour cela, il y a tout un schéma de complot préparé par l'État du Sénégal. Il est bon que nous, en parlions ici. Et le procureur vient de poser un acte, entre autres. Le procureur de la République vient de dire à tous les Sénégalais que nos voyantes forces de défense et de sécurité ont pris un rebelle qui curieusement s'appelle Ousmane et qui serait venu à Dakar avec un conteneur de bombes pour faire exploser tout le Sénégal à partir de Dakar. Le ridicule ne tue pas. Ce procureur doit, doit avoir honte à ce moment-là en, nous racontant ces histoires. Et vous voyez la corrélation avec le contexte. Le procureur intervenait, c'était un acteur politique de Bernard Bokoyakar qui intervenait. Et il aurait dû avoir le courage, parce qu'un homme doit être courageux. Au lieu de dire, euh, nul n'est intouchable, nous poursuivrons, etc. Il n'a qu'à dire comment Macky Sall m'a mandaté pour préparer un complot contre Ousmane Sonko, pour l'accuser de rébellion, de rebelle et aller le prendre. Un homme doit être courageux. C'est ça la mission qu'il a reçue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Et je suis heureux qu'on ait glissé de djihadistes à euh, financer par violeur Oil, euh, violeurs, maintenant c'est euh, euh, euh, MFDC avec peut-être chez moi il y a des Kalashnikov et des, je ne sais pas moi, des 12-7 ou je ne sais quoi, pour préparer des attaques contre les gens. Des M16, voilà. Lui c'est un militaire, il connaît les armes. <laughs> peut-être qu'il y a ça chez moi pour préparer un coup d'État contre Macky Sall. Le seul qui prépare un coup d'État au Sénégal, je le dis ici et maintenant, le seul qui prépare un coup d'État, qui a déjà perpétré des coups d'État électoraux, parce qu'il n'a pas gagné 2019. Il n'a pas gagné les élections passées. Mais qui prépare un coup d'État présidentiel pour 2024, il s'appelle Macky Sall. Et si on le laisse faire, les Sénégalais, le réveil sera brutal. Il faut freiner Macky Sall pendant qu'il est temps. Ensuite, vous avez vu, après le mois de mars, ils avaient voté une loi ici pour dire que toute manifestation pourrait être considérée comme une insurrection. Les deux délits qu'ils préparent, c'est ça hein? appel à insurrection, rébellion. Ils sont allés juste pour, dire combien ils sont ridicules. Je vais vous Wolof. garde corps bi ñuy wax c'était un bras droit de Salif Sadio qui l'a détaché pour mon soit sama garde de corps limousine c'est judd Barni, di le su pour la première fois c'était un grand maquisard euh, formé par Salif Sadio qui l'a détaché pour qu'il soit mon garde de corps ngeen jéggal ma ci kàddu mais ñii dañoo fen fen fen fen ba foo leen gis léegi fen la ñuy nuru ngeen jéggal ma rek ci kàddu bi donc loolu la ñuy préparer et il faut que les sénégalais en soient conscients te leader yi fi nekk yëpp la ñuy viser nag waaye ñi fi nekk ñëpp dëppoo nañ parce que nee na Khalifa Sall fexe naa ba écarter ko tey mënul dem élection fi lekk gars yi gañewuñu assemblée nationale def li ñuy def et cetera. Donc, <laughs> tous, les, tous les leaders ici, ici sont concernés et sont visés. Macky Sall un Ken, ngay euh, euh, euh, leader politique ngay mouvement citoyen ngay journaliste Kep ni d'accord ni voilà je suis Légui dañ wolof moy Macky fi mu suis ñun ndox du fa ku suis ak mom amato sañ-sañu noy ci mi ndax Moustapha si partiem du PUR nga suñu allié la alliance bu def manifestation sargal samedi sargal sëñ Moustapha si lan la ci ragal nañ leen autorisation dem fay stade Dakar Arena desul lu dul samedi ñu dem def sen manifestation té ñun ñëpp dañ fa nous teew ndax dañ ñoo invité légui lañu Cheikh Tidiane yum bind né Macky Sall terewaat na wax na wa Dakar Arena nañu nangu terrain bi manifestation bu mu am foofu man xawma légui ban Sénégal lañu nek on en est là et c'est pourquoi nous avons voulu dire aux Sénégalais que nous on mène un combat de principe je m'excuse d'être long mais c'est important qu'on se comprenne nous ne menons pas un combat pour des postes nous ne prenons même pas les salaires quand on, est élu. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais on ne peut pas continuer à laisser Macky Sall choisir qui va aller à une élection et qui ne va pas aller à, l'élection. Ce qui se passe au Sénégal est impensable en France ou aux États-Unis ou je ne sais où. On dit qu'on va aller à une élection. Aucun des ténors de l'opposition ne va participer à cette élection. C'est Macky Sall qui va choisir. On dit c'est la liste des des suppléants de wall Qui connaît les gens qui sont dans la liste des, suppléants de Yehu Askanui Mais c'est inadmissible. Et on ne peut pas continuer à laisser ça. Je dis aux Sénégalais et aux Africains, parce qu'il est le président en exercice de l'Union africaine. Un homme qui ne peut pas régler les problèmes élémentaires chez lui ne peut pas régler les problèmes de l'Afrique. Macky Sall n'est pas un panafricain, c'est un faussaire. Il ne croit pas à l'Afrique, il ne croit qu'à sa petite personne et il veut utiliser ses fonctions de président de l'Union africaine pour se tailler une envergure internationale et pouvoir justifier demain d'un poste à, l'ONU ou je ne sais où. Et je m'adresse à tous ces gens-là. Voilà un homme, parce que nous sommes aussi informés sur lui que lui sur nous. Il faut qu'il le sache. Qui serait prêt à commettre des attentats au Sénégal pour pouvoir justifier le recours à des moyens constitutionnel exceptionnel État d'urgence, couvre-feu, emprisonner les, les, les, les, trucs. Et il est aidé par ça, par ses partenaires étrangers. Nous savons ce qu'il était allé chercher en France. Nous savons ce qu'il cherche partout quand il se déplace. Nous savons qui il rencontre, y compris les acteurs nationaux qu'il rencontre, que ce soit connu ou pas. Tout ce qu'il prépare, on le sait. Mais les Sénégalais le savent parce que c'est cousu de fil blanc. Et c'est pourquoi euh, nous réitérons ce que nous avons toujours fait. Face à un homme comme celui-là et face à son parti, il n'y a qu'une chose qui vaille et il attend le, moindre signe de faiblesse de la mobilisation. Je m'adresse aux Sénégalais, toutes couches confondues, mais particulièrement à la jeunesse. Il n'attend que cela. le moindre signe de faiblesse sera exploité pour Macky Sall, par Macky Sall pour dire que le, le, mouvement s'est essoufflé. Il pense qu'il peut prendre sa revanche sur mars 2021. Et si les gens ne se mobilisent pas, nous, nous n'avons que notre volonté. Nous sommes prêts à nous livrer pour le peuple sénégalais. Nous sommes prêts à porter ce combat-là. Mais c'est le combat d'abord de chacun et chacune des Sénégalais. Il faut que les gens le comprennent ainsi. Et c'est pourquoi il ne faut pas que la mobilisation faiblisse il faut que les gens se mobilisent massivement. Nous examinons même d'autres formes de combat, y compris la, désobéissance, désobéissance civile. La désobéissance civile. Et il y aura des jours où on demandera à tous les Sénégalais à 20 h de se mettre à leur fenêtre et de faire un concert de casserole. Il y aura des jours où on demandera à chacun de rester chez lui. Toutes les formes de lutte sont envisageables. Mais pour le moment, nous avons un rendez-vous, c'est le 17. Nous appelons les Sénégalais à se mobiliser massivement et nous attendons le procureur et son complot. Voilà ce que nous voulions dire. Nous vous remercions de votre attention et nous excusons d'avoir été très long. Merci.